أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokki jullit yi ginnaaw buñ tàmbalee ci sunu turu boroom ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko noo ngi ànd ak yéen ba tey ci istuwaaru suleymaan alayhi salaam noo ngi tolloon ci suleymaan xéewal yi nga xam ne moom la ko yàlla defal yàlla tàggatal ko ay mbir waxoon nañ ba ci jiitu mooy yàlla mayoon na Suleymaan rabu àll yi picc yi suñu waxee mu dégg ñaareel bi yàlla mayoon na ko jinne yi topp ko mu tënk leen ñu koy liggéeyal guddi ak bëccëg ñetteelu dars bi ci li ko yàlla may moom Suleymaan mooy yàlla moo ko tàggalal tàggatal ngelaw li lu mu soxla rek ngelaw li daal di ko koy defal tasxiiru riyaax li suleymaan loolu nag dafa am lu ko waral jékki-jékkiwul rek hasard ma yàlla jël ngelaw li jox suleymaan ne ko loo ci soxla rek mu defal la déedéet lu jiitu loolu yàlla di tàggatal suleymaan ngelaw li mooy man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran minha ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën loolu qaida la loolu reegal la boo xam ne dafa sax ci diine sax ci pas-pasu jullit saa yoo bàyyee dara ngir yàlla yàlla dina la jox li ko gën moo xam li nga bàyyi dafa dagan moo xam li nga bàyyi dafa araam saa yoo ko bàyyee ngir yàlla bu ñu la nee mbir mi dafa araam nga bàyyi ko ngir yàlla yàlla dina la jox lu ko gën sooy xëccoog ay nit mbir mu dagan wala nga bëgg mbir mu dagan keneen bëgg ko nga bàyyee ko ko ngir yàlla yàlla dina la jox lu ko gën Suleymaan benn bis comme ni ngeen xamee ne ni mu amee armée ay nit ak jinne rabu àll yi ak njanaaw yi lépp ci loxo Suleymaan la nekkoon armeem bi soldaar yi yàlla daf ko mayoon moom Suleymaan ay fas yoo xam ne fas yi ci rafetaay ak am jëmm ak ci mën a maaj kenn xamul nu mu toll bis bu fas yi génnoon di maaj di préparer jihad di préparer xeex ci yoonu yàlla kenn dootul def dara dañuy taxaw di xool fas yi ni ñu bëree ak ni ñu rafetee ak ni ñu organiser ak ni ñuy defee préparation yi ak ni ñuy maajee benn ngoon walla benn bis Suleymaan alayhi salaam génn na ngoon la woon Suleymaan taxaw armée bi ran fas yi ran Suleymaan di leen xool gars yi di tàggat fas yi ak fas yi ni ñuy ni ñuy wonee seen mën-mën ak seen gaawaay ak seeni tëb ak seen waajal xeex ci yoonu yàlla ndeke Suleymaan fi mu taxaw di leen xool heure julli paase na tàkkusaan paase na bu yàgg Suleymaan taxaw rek di xool fas yi balaa muy géndeeku xelam dem ci ne heure julli paase na fekk c'est c'est trop tard Suleymaan bañ ko ne yow xanaa xamoo ne heure julli paase na Suleymaan am lu ko metti li ko metti mooy lan mooy taxaw na di xool fas yi ba waxtu bi mu war a jaamu yàlla daal dem mu ne delloo si leen ma fas yi indiwaat leen yëpp ndeysaan ñu delloowaat fas yi ci terrain bi Souleymane jël jaasi topp ci fas yi di dagg tànk yi di dagg baat yi bu mu dóor rek say tànk dem bu mu dóor sa baat dagg Souleymane rey yëpp ba yëpp jeex takk ci façon boobu la leen rey di dagg baat yi ak dagg tànk yi ba fas yi jeex ñu ne ko waaw lii nag mu ne lii moo ma tere jaamu yàlla kon dama koy bàyyi bi Souleymane defee loolu bi nga xamante ne jël na ngànnaayam lamma aqara Souleymane ibnu Daoud alayhi salaam alxayla allati sagalatu an salaat al asri julli googu julli tàkkusaan la woon wala julli tàkkusaan dafa am importance ci islam xam ngeen ne julli googu ñuy wax te mooy julli salaatul wusta boroom xam-xam yu bari werante nañ ci ñi ne julli sàngam la julli sàngam la julli sàngam waaye li gën a wóor mooy julli tàkkusaan la moom salaatul wusta julli googu nag moo raw Souleymane ci armeem bu mu doon seetaan ay fas yu mu doon seetaan ba julli gi rëcc ko Souleymane daal di gor fas yi seeni baat ak seeni tànk ba mu defee loolu sunu borom subhanahu wa taala daal di koy tàggatal ngelaw li léegi bu waree dem fenn ngelaw li day wàcc mel ne bâche yenn borom xam-xam yi nee na ay bant la comme tapis bu ñu lal lu tolloog ay kilomètre carré nga xam ne borom xam-xam yi wute nañ ci ngelaw li ñaata lay toll ci bu bu wàccee Souleymane yéegal li mu bëgg a yéegal lépp ngelaw li daal di dëjjatee ko ak moom daal di dem waaye waxtaan bi mooy dars bi mooy lan la Souleymane def ba yàlla tàggatal ko ngelaw li mooy Souleymane dafa bàyyi dara ngir yàlla. moo tax léeg-léeg doomu aadama pour nga egg ci yenn daraja yi ci yàlla foog nga bàyyi lu bare bari borom xam-xam bi dañu wax ne ñeenti mbir wala ñett ku ko bàyyi egg ci yàlla ku bàyyi bakkanam egg yàlla ku bàyyi seytaane egg ci yàlla ku bàyyi aduna egg ci yàlla ku bàyyi ñeenteel bi lan la ñeenteel bi ah ñeenteel bi alal ñeenteel bi loolu la kon ñeenteel baa ngoog mercredi ngeen wax ma walla yii nii ku ko bàyyi da ngay dem ci yàlla direct waaye mbokk yi laaj bi mooy ndax yii neex naa bàyyi ndax àdduna yomb naa bàyyi ndax bànneexu bakkan bakkan yomb naa bàyyi ndax seytaane nit mën naa rëcc ci moom kon yii ay mbir la yoo xam ne ku ko bàyyi yegg ci yàlla Souleymane ba mu xeexeeg bakkanam ba jël lii nga xam ne moom la ko yàlla joxoon ñépp soxla ko nga xam ne tey bu doon ci àdduna la ñu ne ay kat kat la yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ndax ci jamono yooyu xool leen fas nga xam ne dafa am importance ba yàlla di waat ci ñoom ci alquran wal aadiyaati dabaxan fal muuriyaati qadxan fal mugiiraati subhan fa atharna bihi naqaan fa wasatna bihi loolu ay fas la ay xeeti fas la yoo xam ne yàlla moo waat ci ñoom lu mel noonu loolu la Souleymane amoon waaye loolu tar tardeel ko mu jëm ci yàlla Souleymane simmeeku ci loolu ba set daal di koy jële ci kanamam génne ko ci dundam yàlla tabaraka wa taala daal di koy tàggatal ngelaw li moo tax dars bi nekk man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran min képp ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën mu ne Souleymane yàlla jox na ko ngelaw li wali Souleymane riix aasifa tajri bi amrihi ila al ardi allati baarakna fiha beneen aaya bi ne wali sulaymana rih guduwuha shahr wa rawahuha shahr lamma tarakal xayla suleymaan ba mu bàyyee fas ya waaye lu tax mu bàyyi ko mooy ibtigaa wajhallah ngir ut jëmmi yàlla ca jamono yooyu awadahu llahu min harri yàlla ci la ko fayee ngelaw li ngelaw li nga xam ne asra ngelaw ak fas lu gën a gaaw ah ngelaw ak fas est-ce que ngelaw am na lu mu tollool ci gaawaay ci àdduna Souleymane lu gaaw la bëggoon Souleymane fu ay soldaaram war la bëggoon Souleymane lu ko dimbali ci jihaat la bëggoon yàlla indil ko ngelaw xoolal ak bénéfice yi ci nekk fas yi sax bu ñu demee mën nañoo dee wala fas yi xoolal coono ñi ci war fas yi li ñuy dundee ak ni ñu leen di toppatoowee loolu ñaata budget la ñaata la waaye xoolal Souleymane léegi. soldaar yi mu yor duñu lekk duñu naan ngelaw day lekk day naan dañ koy sang dañ koy utal ci ay caserne yu mu nekk abadan yàlla bàyyil ko indil ko soldaar yoo xamante ne wala soldaar boo xamante ne bu ci waree du lekk du naan te moo gën a gaaw la mu yoroon indil ko lu gën a gaaw wa aqwa lu gën a dëgër wa azam lu gën a rëy loolu la ko yàlla indil yàlla indil na ko lu gën a gaaw indil ko lu gën a dëgër fas yi indi ko lu leen gën a màgg tajri bi amrihi te kat ngelaw li moom rek lay dégg su ko nee wàccal mu wàcc bu ko nee yéegal mu yéeg dafa mel ne bouton la yor su ko neexee mu métrager kilomètres yi damay dem waxtu damay dem heure sangam laay dem te waxtu sangam laay yegg day day def métrage bi heure boobu mu wax heure boobu lay yegg. yàlla tàggatal ko ko mu nekk ci ndigalam haysu arada min ayi bilaad dëkk bu mu bëgg a dem danaan ngelaw li ñëwal ngelaw li wàcc mu yéegal armée bi nit ñi yéeg jinne yi nekk wër ko rabu àll yi nekk ci kaw njanaaw yi nekk ci kaw tiim ko lu tolloog ay 4 kilomètres carré lépp moom kenn mu nekk ci digg bi te kat lu yéeme dafa nekk ci moom benn warukaay boo xam ne warukaay bu yomb la mel ne benn tappi bant lañ lal lépp lu mu yor ci arbe bi nu mu toll day yéeg ginaar yi sax dañuy yéeg lépp lay lépp ay yéeg tout lu mu soxla rek loolu day yéeg allahu akbar nee na bu ko ci neexee mu def ci ay tànt bu ko neexee mu samp ci ay xayma bu ko neexee mu teg ci château yi bu ko neexee mu teg ci bagage yi bu ko neexee mu yéegal ci fas yi bu ko neexee mu yéegal ci gëléem yi bu ko neexee mu yéegal ci lu ko neex rek mu yéeg ci nit ak jinne lépp lu mu soxla ci armée bi suy toxu daal day mel ne benn dëkk buy toxu xam nga ne dëkk bu ñuy dem lan la ñuy bàyyi lépp la ñuy yëkkati Souleymane loolu la ko yàlla tàggataloon ci ngelaw li mu ne wa xayru zalika min al xaywanat wa tuyur nekkul sax rek nit yey dem wala jinne yey dem wala bagage yey dem waaye rabu àll yi mu soxla sax da leen di yéegal waaye picc yi sax dañuy yéeg nekk ci kaw ndeysaan lang ci kaw ñoom la ñuy nekk mu ne fa iza arada safaran bu fekkee dafa nam mu tukki day préparer ngelaw lu ñëw mu départ su fekkee dafa bëgg doxantu day préparer ngelaw lu ñëw mu dem su fekkee dafa bëgg xeex ak buur wala benn noon ci dëkk bu mu bëgg a dem ngelaw li lay wax ñëwal ngelaw li ñëw daal di wàcc Souleymane daal di yéeg parce que yàlla mën a maye waaye xool lii yëpp yàlla defal Souleymane da ngay dégg ci Sénégal ab benn kilifa diine di critiquer Souleymane moo tax Sénégal dëkk bu yéeme la li oustaz Aboubacar Jànqe di wax ne baladul ajaib wal xaraib mooy Sénégal karafuru kéemtaan xam nga Souleymane dafa wax yàlla ci alquran rabbi habli mulkan laa yambagi li ahadin ah minhu baadi yàlla yàlla nag ma may nguur goo xam ne sama ginnaaw kenn du ko am benn sëriñ nee na sa Souleymane ku soxor la ndax mu yox loolu Souleymane bu waxuloon loolu man ma am loolu moom mu indi ko ci ba mu ne Souleymane bu waxuloon loolu moom mu am loolu c'est que Sénégal seen problème mooy yonent yi ak ak ak ñooy seen problème yonent yi ak saxaaba yi ñoom dañ ñooñu dañ leen def problème daal yonent yi ak saxaaba yi dañ leen def problème moo tax mboolem yonent di nga dégg ñuy wax ci moom ba ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam dañuy wax ci moom loo xam ne kenn du ko wax ci seen kilifa yi te loolu lu dangereux la yonent yi du suñuy moroom sahaaba yi du suñuy moroom bu ñu neexee bu ñu naqaree bu ñu ko nangoo bu ñu ko bañee loolu la yàlla def ba pare yàllaay ki ko def yàllaay ki bind jaamam yi jël yonent yi teg ca kaw ba yonent yi pare mu teg ci sahaaba ya ba saa yi ba yi payeer mu teg ci taabiin yi yàlla binde noonu jamono même yonent yi sax yàlla moo leen bind waaye mu ëppante leen ay grade tilka rusul faddalna baaduhum ala baad minhum man kallama allah wa rafaa baadahum darajaat yàlla mooy ku def loolu même nit ñi noonu la leen yàlla bindee yàlla yemalewul nit ñi loolu moom coobareem la moom yàlla moo ko moom machia la dogalam la namm téefam la moo ko coobarewu moo ko bëgg noonu la bëggee mbiram mu defe ko noonu nit nag lu ko ci war mooy mu nangu ndogalal yàlla waaye ab yonent nga nga koy tuutil ab yonent tey su kenn fii ne day tuutil yonent yàlla muhammad wala day tuutil suleymaan wala day tuutil ibrahima wala day kan lay tuutil boppam te suleymaan moom muy tuutil suleymaan moom li mu doon am am na ko ba pare li gën a rëy mooy yàlla tudd na turam ci alquran indi xissaam yow mii di wax yow ana sa tur fu mu nekk ndax dafa nekk ci alquran wala dafa nekk ci buxaari wala muslim abu daawud tirmisi nisaa'i ibnu maaja yonti yoon yàlla suleymaan nag yàlla daa wax turam ci alquran bal sax yonent bi alayhi salatu salaam da koo tudd ci hadisaam yi kon yonent yi du suñuy moroom bañ leen di concurrence bañ leen di jéem a tuutil bañ leen di jéem a wàññi seeni daraja ab jullit dafay nangu ndogalal yàlla suleymaan xéewal gi ko yàlla may yàlla may ko kenn ci àdduna ñaari nit ñoo mës a gouverner àdduna ñeent lañ ñaar ñi ay jullit lañ ñaar ñi ay yéeféer lañ ñoo mës a gouverner àdduna bu ñu nee gouverner àdduna mooy àdduna bi yëpp benn président la am tey boo koy xool ci sunu àdduna bi ñaata président ñoo am ah bëri na dëkk bu nekk ak sa président Souleymane nag moom lépp la jiite woon yemul woon ci jiite nit ñi waaye daa jiite nit jinne ak rabu àll ak njanaaw ñeent yëpp la jiite tout loolu kan moo kan la Macky Sall mii rek am na sénégalais yoo xam ne jiitewu leen ndax neexuñu ko su wootee duñ ñëw suñuy wax suy wax duñ ko déglu wala te fii la nekk ak nun wala Souleymane nag moom lépp la defoon moom lépp la gouverner ci loxoom nit jinne njanaaw ak rab tout nekk ci loxoom yàlla moo ko mayoon loolu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom Souleymane loolu yàlla defal ko lépp ci ay xéewal ci rab yeeg lépp nga xam ne bu lu mu bëgg rek mu daal di koy am mu ne ngelaw li su ko daan yenul la mu bëgg da ko yenul ci lu yomb ngelaw li ci ndiganam la nekkoon nee na ngelaw li bu déclenché wu di jóg day naaw diggante asamaan ak suuf su demee ba kawe ci asamaan Souleymane yabal niir yi niir yi ñëw daal di couverture armée bi jant bi du leen laal ci sedd la ñuy nekk ba ñu yegg loolu kan la ko yàlla may fii wax naa sànq ne ñaar ñeent ñoo gouverné woon àdduna ñaar ñi nekk jullit ñeneen ñaar ñi nekk yéeféer ñaar ñi nekk jullit kan ak kan la woon ah Suleymaan ak Zulqarnayni Suleymaan ak Zulqarnayni mooy Alexandrie le Grand ñaari yéeféer yi pourtant def nañ ko fi dars de def naa ko dars fii de bàyyi naa ko noonu mercredi ngeen wër ko pourtant def nañ ko fi dars ci ci ci xista Souleymane bi muy commencé defoon nañ ko ci dars mbokk yi kon ñeent lañ ñaari wax nañ leen mu des ñaari yéeféer yi moom Souleymane alayhi salaam yàlla loolu mu ko defal ci ngelaw li nga xam ne may na ko sax niir yi di ko tiim ci waxtu wu ko neex ci lépp mu gaaw bay bëgg a dee su bëggee wàcc wàcc ci moom ni mu ko bëggee su bëggee dem dem fu ñuy dem fu ñuy dem weer Suleymaan benn bis la koy dox fu ñuy dem at weer la koy dox moo tax alxuraan ne xuduwuha wa rawaahuha shahr fu ñuy dem at va et vient la koy def aller retour weer mu ñëw fu ñuy dem weer benn fan la koy def yegg kooku kan moo mun a xeex ak moom gis ngeen keroog ba muy tubloo balxiis seize bi nga xam ne moom la balxiis toogoon suleymaan bi mu bi mu dajalee nit yeeg ginne yi ci saal bi mu ne dama soxla séesu balqiis laa soxla léegi fii ma toog balaa may jóg kenn moo ko ne man de mën naa koo indi balaa ngay jóg mu ne ko loolu dafa yéex balaa may jóg loolu dafa yéex waay keneen ke ne ko soo xoolee ci kaw balaa ngay xool ci suuf mën naa koo indi mu ne ko loolu dafa yéex allahu akbar kenn ci ponkal jinne yi ne ko xef ak xippi mën naa ko indi mu ne ko ana mu ne moo ngi nii xam ngeen ne Souleymane li mu amoon du lu ndaw ah Balqis bi mu ñëwee ñu ne ko lii de sa toroon la mu xool ko xool ko xool ko mu bañ a fen lu mu wax kan na huwa loolu nag moom de moom la allahu akbar xoola xef ak xippi koo kenn ki loolu la ko wax xef ak xippi ma indi ko kon ñeneen ñi nag ñi des ñi te xoolal Souleymane lii mu am lii lépp am na lu mu mënul gaa yi ko wër am na lu ñu xamul Souleymane doomam feebar na feebar kenn xamul lu koy faj fu ne ñu yóbbu ko xale bi bañ a wér mu dajale jinne yi ne leen yéen xanaa da ngeen a al ko yéen sama doom feebar mun leen koo faj ak yëpp benn jinne ne ko kii daal ki ko mën a faj kenn dong la ci jinne yi te at bu nekk benn yoon lay génn mu ngi ci digg géej gi géeju sàngam kooku daal bu ñu ko indi woon dina wax kii lu koy faj mu ne dem leen ngeen indi ko gaa yi dem defar ay mbaal at lay génn benn yoon ñu dem taxaw foofu di ko xaar foofu mu génn kon ñaata fan lañ fa taxaw ñaata weer ba jinne bi génn rek ñu ne ko karaab te jinne bi reetaan bay bëgg a dee daal di noppi ñu ne waaye kii li muy def ni ñu indi jinne bi ci yoon bi ñu ngi koy indi mu ñëw jinne bi romb benn waaye bu doon bu doon ut or ut ba sonn amul mu toog ci suuf garab gi di noppalu jinne bi xool ko rek reetaan jinne yi yoroon jinne bi na waa jinne bi moom muy def nii mu dem ba yegg ci Souleymane rek daal di ree ñaata yoon la ree Souleymane ne leen waa kii bi ngeen ko jàppee ba léegi lan la fi def lan la def jinne ne ko ñun kay dañoo jaaxle kii daal bi ñu ko jàppee li mu njëkk a def mooy dafa reetaan Souleymane ne ko waa yow loo doon ree mu ne damaa xam ne juróomi junni at yi ci kanam lu fi war a ñëw rek xam naa ko te tey jii ñu ngi may jàpp xamu ko loolu loolu laa ree te man li war a xew fii xam naa ko mais ñu ngi may jàpp tey xaw ma ko ma génn ñu jàpp ma loolu laa reetaan di allahu akbar moo tax yàlla wax laa yaalamu alxayba man fi samawati wal ard illa allah yàlla mooy alimul xayb xool kii xam na juróomi at yi juróomi téeméeri at yi li fi xew waaye xamul ne tey dañ koy jàpp mu génn ñu ne ko crapté mu reetaan Souleymane ne ko waa yow deuxième ree bi lu tax nga ree mu ne dama benn waay bu doon ut or ñetti weer mu nekk ci àll bi di wut or amul mu ñëw toog ci suuf garab gi di noppalu te xamul ne garab googu mu toog foofu la or bi nekk ci suufam foofu mu toog ci kaw or bi la toog mu ne loolu laa reetaan allahu akbar Souleymane ne ko waa léegi yow bi nga ñëwee ba fii ñu sànni la sama kanam ak seen yi la seene da ngaa reetaan mu ne waaw damaa reetaan kay ñu ne ko Souleymane ne ko looy ree mu ne lu tax ngeen indi ma fi Souleymane ne ko sama doom moo feebar ma bëgg ma laajte lu ku koy faj ñu ne ma yow yaa ko xam moo tax ma jëli la indi la fii mu ne loolu kese la loolu rek ngeen may dee mu ne waaw mu ne garab gii nga tiim nii toog nii xob yii mooy faj sa doom ji loolu rek nga ma fi indee mu ne biñ ma sànnee fii loolu laa ree ñii lan lañ ma fi indee garab gi mooy faj xale bi luñ ma fi indee allahu akbar Sulay moo tax Suleymaan yàlla li mu ko mayoon dootu ko may keneen te moo ko ñaanoon yàlla nag ku mel noonu nga koy critique ngay wax ci moom dara loolu doy na waar de ku yàlla wax ay mbiram ci alquran koo xam ne gouverner woon na àdduna Suleymaan a ngoog mbokki jullit yi Suleymaan mii ci yàlla xéewal yi mu ko ko defoon su bëggoon dem baytul maqdis ngelaw yi da koy yóbbu direct xam ngeen baytul maqdis moom moo ko tabax mooy Jérusalem tey jàkk ji nga xam ne yahudi yi ñu ngi koy bëgg a nangu wala nangu nañ ko ba pare sax nee na ngelaw li lay moo koy tàggat mu yóbbu ko mu dem ñëwaat ci nu mu ko neexee façon bu mu bëgg sunu borom subhanahu wa taala moo koy yóbbu ci baytul maqdis rawatina nag ba bëggee tukki tukki bu sori nee na loolu moom ay ay minute la koy def ci lu gaaw ngelaw li daal di koy yóbbu mu daal di ñëwaat kon mbokk jullit yi Souleymane bokk na ci suba subhanahu wa taala sunu boroom tàggatal yi mu ko tàggatal wax naa leen ko léegi mooy ba ca jiitu mooy Souleymane bu picc yi waxoon mu dégg ak rabu àll yi waaye Souleymane yàlla tàggataloon na ko jinne yi waaye bokk na ci li ko yàlla tàggataloon mooy ñetteel bi mooy yàlla tàggataloon na Souleymane ngelaw li mu des yàlla tàggataloon na ko weñ yàlla tàggataloon na ko ay nit ak ay jinne ak ay picc loolu moom mooy nekk sunu dars bii di ñëw yàlla mayoon na ko xam-xam ak xereñ loolu tamit incha allah dina nekk àllarba yi di ñëw ci sunu kanam ñoo ngi jéggalu di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ay question incha allah